muur bii dafa toog ba mu yàgg rek jékki-jékki rek xoolal dem si benn sabar lawbe lawbe boo ko gisee liir gu mu nàmpal di ko doxat baa nga fer tax weeni pome xàpp taati ni transu xaal lèvres yi comme saucisson mu xool muur ba si yàgg daal ne lu muur bi fu mu loo ko coow la bari sabar ba commencé randax ki te dëggit randax ki te dëggit jëgë jëgë moo ko fer yi moo lee la moom dëkk acc la gën a bari randax ki te na war ko suru naa li moo lee moom dëkk attu coole gën a ba a dax ki da dëgg na mm, mm, mm, digi dëgg na ne ko ni moomal yàlla moo ma nekk gàkka